damay ki nga xam ni ñu tàcc ko bu baax. tàccu leen Serigne Fallou waay. ñëpp jóg taxaw tàccu. tàccu leen Serigne Fallou borom kóllëre maa ngoog. alaaji borom kóllëre gaa ah, nit ku am kóllëre. mbokk yi. mbokk yi ma jox kàddu gi ki nga xam ni moo am kóllëre ki nga xam ni moo xalaat ay bokkam ki nga xam ni moo ni naa ñëwaat fii xam naa bu paree Cheikh Thione Ndiaye commenté mais dama koy bàyyi mu jël parole Luc Nicolaï bis baa ngi noonu nit ñaa ngi noonu nga wax nu lan moo waral lii nga def ci kàddu yu gàtt ndax duna bëgg woo Kumba la bala ñu dugg ci face à jërëjëf Abdou Aziz damay sant Serigne Bara Mbacké Fallilou di sant euh, njabootu Sëñ Touba bi yëpp fàttewuma kenn mënuma wax aussi te sant ma ministre de la justice parce que moom moo ñu permettre li tey ak DAP directeur de l' administration pénitentiaire ak aadama Diallo ak inspecteur bi fi nekk di inspecteur Ndiaye yor département eh, wax ji nag ni nga wax duma ko guddal ndax yaakaar naa ne dama bëgg Sénégal ibbi seen bët xam ne tey jii eh, tollootuñu ci wax lépp li ma nar a def nañu ibbi seen bët xool ndax ci liggéey laa leen koy wan wasalaam jërëjëf Luc Cheikh Thierno